loo xam ne soxla na ko muy ay këyit këyit këyit képp ay këyit nga xam ne réewam moo ko war a yombalal fekk ko fi mu toog mu jox ko ko te boo ko soxlaa da ciy daw bay bëgg a dee loolu dafay nourrir un sentiment xam nga antipatriote day tax nit ñi duñu bëgg réew mi day tax nit ñi dañuy am yéene taal Sénégal bu ñu meree dañuy taal lépp parce que ñoom réew mi yombalu leen dara moo tax bu ñu meree lépp ay tàkk parce que ñoom ñuy toog di wax au lieu que ñu yombal nit ñi li mënta ñàkk mooy ay këyit carte d'identité carte électeur war nañoo toog ci moo xam ne tey pour nga am carte électeur Macky Sall day toog fi mu toog di bës ci ay bouton Antoine Diome nit ñi gone yi di daw guddeeg bëccëg di galéré mënuñu ko am léegi ñu meree génn réew mi tàkk saytaan yi toog ci ku nekk naan daj lañ fi nekk yàq mi tàj mais ki yàq réew mi mooy ki nga xam ne mooy xañ askan wi àqam ak yelleefam les sénégalais sont des dañoo bëgg réew mi réew nag boo ko bëggee dafa am lu mu lay fàggul nga am loo ko fàggul mais li la réew mi fàggul mooy këyit wi wane ne wala carte bi wane ne yow sénégalais nga muy carte d'identité li li réew mi fàggul mooy carte xob bi nga xam ne mooy tax su bu ñu tànn njiitu réew mi nga mën koo am taxaw ko ci ñuy tànn njiitu réew mi yow demandé woo milliard demandé woo dara te lépp am nga ci droit yow Macky daf laa amal liggéey amal la wér-gu-yaram amal la dem dikk amal la karange amal la lépp loolu lépp mu xañ la ko nga ne waa d'accord donte waruma koo xañ waaye nag sama xob bi nga xam ne moom laay tànne sama carte bi nga xam ne carte électeur bi nga xam ne moom laay tànne waaye loolu la jox ma ko Macky ne déedéet du ma la koy yombalal dama la koy jafeel mais kon Macky lépp la xañ askan wi lépp la xañ ndaw ñi léegi bu ndaw ñi génnee taal réew mi màggatu saytaane yu xubi daa seeg nit ñu naafeq ñu génn naan réew mi lii baaxul kër fekk ndaw ñi dañoo sonn ndaw ñi lépp lañ leen xañ lépp réew moo xam ne loo fi laal ngay daw safaak marwa pour mën koo jot ci loo xam ne yoon moo ko jox réew mi ko fàggul comme comme réew mi la ko fàggul lépp ñu bëgg ko xañ bu réew mi tàkkee saytaane yi ku nekk génn di wax sëriñ si ñëpp di wax saytaane yi ba kañ mais là jafe-jafe yi nit ñi am pour bind doo dégg kenn ko wax seen tante yi seen gàmm yi kenn du ci wax waaye bu réew mi tàkkee ba xale yi génn ñu commencé réew mi lii fitna lii jàmm lañ bëgg saytaane réew mi naafeq moo ko yàq waaye yéen ndaw ñi am leen fulla bu leen déglu kenn bu leen déglu papa bu leen déglu yaay bu leen déglu nijaay bu leen déglu sëriñ leen déglu kenn réew mi yéen a ko moom Sénégal mi ngi ci loxo ndaw ñi vous êtes 67 pour cent de la population yéen a ci gën a dee yéen a ci gën a sonn amu leen dara ay màggati xubidaas ñoo toj ci ko réew mi di nappaage seen i jeeg di lekk àll réew mi lànk leen loolu nañu foqate réew mi ci ay carte bu ñu ko bëggee xañ ñu gën a jaasi xeex ak ñoom nangu réew mi téye ko ñu ndaw ñi ñoo koy tabax leen bu leen déglu kenn ay naafeq lañ su ngeen parewul c'est fini li ñu bëgg mooy fagaaral Ousmane Sonko pexe yu ne ngi koy teg pexe yu ne yéen nag yéen ay Ousmane Sonko yéen sénégalais bu ngeen amul parlu taxaw naan Sonko Sonko Sonko te amoo carte booy wote Sonko Sonko te jaral la nga jóg fanaan ci naaj ba taxaw ba bindu Sonko Sonko Sonko te amoo carte li ngay wax yëpp yow ak Macky Sall yam benn ngeen Ousmane Sonko ngeen bëgg a fagaaral te bëggoo senegal nit du nax boppam jóg leen ngeen taxaw bindu ji. bu laajee rang ñu rang bu laajee bàyyi liggéey ngeen jël congé liggéey dem taxaw fexe ba yor carte yi ndax ci ñetti weer lañ ko waxoon def Macky Sall lank na ci benn weer bu manqué la koy def ndax lan bëggul sénégale yi xam seen ay àq ak seen ay yelleef bëggul sénégalais yi yeewu bëggul sénégalais yi am seen i xob bëggul sénégalais yi voté ba surtout ndaw ñi te ndaw ñi yen a ëpp ci réew mi réew mi xanaa amul démocratie démocratie mooy la loi du nombre la loi du nombre mooy démocratie mooy ñu ëpp ci askan wi la ñu tànn loolu mooy jàll réew mi ndaw ñi ëpp naka ndaw ñi ëppee ci réew mi xubidaas yu màggat ba xubidaas amuñu benn njëriñ lu nappaaje ay jege ak ay fenekk naafeq toog ci kaw réew mi di ko dundee xañ ko ndaw ñi ko wax ñu naan amul kilifa da ngaa léegi la ay tappale kilifa yooyu ay tappale la nit ku nekk majeur kooku yaay sa kilifa bopp ay tappale la dañuy toog leen nax loolu dafa war a jeex. Ousmane Sonko nag wàccoo na ak yéen amatul lu leen di wax ma nga toog këram di faju ak di jaamu yàllaam ci weeru koor la nekk ma ngay jaamu yàllaam di faju moom mi ngi kartam xeex na ba ñu du ba ñu bëgg ko rey assassiné ko waaw yéen ñi wax nag kenn deewagu ci kenn kiiwagu ci li ci des yéen a ko def yee na leen wax na leen li mu bëgg ba mu fukki at yàlla wala juróom-ñeenti at mi ngi wax ak yéen heure bi waroon ngeen a bu yàgg yàgg yàgg kenn dootu ko xaar yéen ñëpp ay Ousmane Sonko yi taxaw temm ngeen waroon doon te moom ngeen sax. na yéen a ngi ko jëmbal gis naa ni ngeen jógee taxaw ndaw ñi macha allah premier jour bi le six bi le sept bi ba tey la huit gis naa seen taxawaay seen parano dama leen a gis dama leen gis sama xel dal ni ngeen taxawoo ni ngeen envoyé ñëw dugg ci commission yi taxaw temm pour pour bindu dama leen gis ma ne sama xel dal na loolu nag bu mu wàññeeku na gën a taxaw na gën a bar na gën a gaaw na fépp fees dell buuxante leen bu bu leen leen may jàmm pour bindu te ngeen vérifier li ngay def lu ngeen gën a bari ci commission yi li may wax nag waxuma ko am na ñoo xam na ku mel ne man maa ngi sama carte électeur maa ngi yëpp man déwuma ci ay commission am na ñoo xam ne bindu woon nañu ba yàgg nañoo ñoo ñu bokkuñu ci yen demu leen fenn bu fekkante ne soppiwu leen place votekaay yéen bokku leen ci ñi ñuy waxal mooy ñi nga xam ne dañuy tuxal seen bërëbu votekaay wala ñi nga xam ne mësuñoo wote bëgg a vote yéen yéen a moom mbind mi yéen lay waxal na ngeen gën a bari na ngeen gën a taxaw na ngeen gën a parlu fexe ba comme ni ngeen ko tàmbalee nii macha allah ba ma gis ko ñu bari gis ko suñu xel dal na ci ni ngeen taxawee lu tax. parce que seen mobilisation seen taxawaay seen dem ci commission yi seen parlu gi ngeen di parlu ak taxaw temb temb temb temb ngir seen ay àq ak seen yelleef ngeen jot ko te mooy carte d'identité bi carte électeur taxawaay boobu dafa am lu muy wund ci bopp Macky dafa am lu muy joxañ ci Macky Sall dafa am lu mu koy won na ko ah attention de gis nga ndaw ñii. seen taxawaay bii temb gii ak seen parle gi ñu am ngir seen carte yi am na lu ñu guux de am na fu ñu jëm am na lu ñu bëgg te loolee bu yow Macky Sall boo ko bëggee gàllankoor dañ lay rey sa loolu ngay ngun nguni naan du ma ne waaw du ma déet damay bokk du ma bokk bis boo ko fi yàbbee da nga xam ne sa gémmiñ gi xasoon ndaw ñii ma gis xiin wii ñuy xiin riir wii ñuy riir ak taxawaay bi ak parle gi ñu am ci commission yi ngir bëgg a bind ndaw ñi mer nañu de am na lu ñu bëgg de te lii ñu bëgg bu ko Macky Sall naree faagaagal dañuy rey Macky Sall kon seen taxawaay seen détermination seen dem ci commission yi mag ak ndaw ak ñëpp taxaw tem ba sakkan ba ñëpp Macky Sall mi ngi leen di xool fi mu toll bu gisee ngeen yox yoxi bu gisee bariwu leen ci commission yi bu gisee ngeen yox yoxi rek day puus day xuus fi mu toll nii ñemewul te sëqat li mu bëgg mi ngi ci boppam waaye ñemeegu koo génne ndax xam na ne amu ki sañ-sañ te bu ko génne yetti dal ko te loolu lépp nag day natt day làmbatu de day xool di xool di xool ba xam ndaw ñi fu ñu toll askanu Sénégal ndax. ñi ngi nelaw mu porox ndollu taxaw leen wan na ko yéen da ngeen a am détermination da ngeen a pare pour jëlee fi Macky Sall lépp lu ànd ak Macky Sall lépp lu ànd ak Benno Bokk Yaakaar góor jigéen na fi jóge ay góor jigéen lañ duñu dara bëgg nañ fi loi buy tere góor jigéen ci réew mi dem ko ca assemblée ba Moustapha Niass ak Macky Sall ñoom ñëpp ñu lànk ana loi ba ba sànq ci suba jàllul réew mi il faut que ñu soppi ko fal ñoo xam ne dañu fiy xeex ak góor jigéen fal ñoo xam ne dañu fi jëlee sàcc alal réew mi fal ñoo xam ne dañu jël alal réew mi delloo ko ci askan wi ci mbay mi ci sàmm gi ci napp gi ci njàng mi ci paj mi ci dimbali jigéen ñi ak ndaw ñi loolu lañ bëgg ci réew mi te ci Ousmane Sonko lañ ko yaakaare jóg leen ngeen dem bindu ji te ñu jëlee fi ak ngóor jigéen gi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko dugal ci réew mi pour yàq seen doom yi yàq jikko yi yàq diine ji yàq l'islam bi yàq diine catholique yi yàq église bi yàq lépp lii la fi Macky indi ak i mi ngi teg ay baxem di indi waaso indi xeexoo gis ngeen ni mu dàqee général bi Shemga Cheikh Wade waxoon naa leen ko temps yële ñi may déglu yéen waxoon naa leen Cheikh Wade c'est un bon général le le général Cheikh Wade le Shemga le chef d'état-major général des armées Cheikh Wade nga xam ne moom ak Moussa Fall ñoo bokk dëkk noo ngaay ay promotionnel lañu ñoo xaw a maase gis nga ni mu ko toroxalee ab communiqué la génne dàq ko dàq wu dàq dàq wu bon dàq bu torox da koo toroxal un chef d' état major général des nga xam ne mooy njiitu armée Sénégal yëpp nga toog fi nga toog def ab communiqué dàq dàq torox na mu dàqee woon Jean Baptiste bi nga xam ne mooy le haut commandant de la gendarmerie jiite woon gendarmerie bi yëpp mu dem ba Matam dàq ko ci dàq xam ne toroxal ko Jean Baptiste Tine noonu la ñëwee tey toroxal ak ki nga xam ne mooy Cheikh Wade bi nga xam ne moo nekkoon ci bopp armée bi jël may sa xaw ma xaw ma naka mbay mbay mbay xaw ma naka ki mu ki mu nommé ku bees ki

wax a wax a wax wax wax wax wax wax ba sa gémmiñ fuur yéen ñëpp ngeen wax ku nekk tàcc woy woy indépendant kër kër armée bee ko def loolu ñu teg ci ñaari fan nga dàq général bi kon y'a un problème am na lu xew mënoo def défilé ne da ngaa am indépendance armée bi macha allah tagg tagg ñi nga gradé kenn ku ne nga jox ay euh, gradé kenn ku ne nga ñii nga nommé ñii nga wax fen say fen ba mu tooy xëpp ñu teg ci ñaari fan nga dàq général bi lu xew problème moo am y'a un problème sérieux au sein de l'armée am na problème bu sérieux ci biir gendarmerie bi am na problème muy mag ci biir police bi parce que li mu bëgg moom Macky Sall du jàll li mu bëgg armée du ko ko defal police bu républicaine du ko ko defal gendarmerie bu républicaine du ko ko defal mi ngi jéem lu ne du sotti dàqal fal ku la neex du sotti